bi fi ñëwaatee eh, dañ ko war a teg loxo parce que li mu fi yàq ak li fi def également c'est énorme est-ce que même pensée bi nga wax sur le plan juridique également dégg nga li ci wax que loolu c'est impensable parce que pour ñu àtte benn haute cour de justice. xam nga yàkkamti moo amul sens parce que nit ñi nit ku nekk dafa am nu ñu tëralee yoon noo xam ne noonu lañ la war a toppee Marème Faye Sall ñu bu fekkee ne dafa am koo xamal lu wér am preuve na dem yóbbu preuve yi. ñu déclenché kii comme ça balay génn ñu mën koo teg loxo ndax du ancien ministre du ba au cour au cour euh, justice euh, di ko épargner wala muy chef de l'état man en tout cas je preneur mais dafa am masse koo xam ne dañ leen a war a gis nga bu leen gars yi moytu dafa am sam benn waay dafa ma yónnee sànq benn vidéo waaju sàll asret ku ñeme yàlla maanaam day jël fukki wax juróom-ñeenti fen ak benn dëkk xam nga man j'ai horreur su ma koy wax gis nga ni ma koy dénoncé ci waa APR yi. parce que dafay wax loo xam ne da ngay xam mu ngi wax ne ci benn vidéo mi ngi mu ciy nettali nee na gars yi dañoo jël euh, Fulbert Sambou wala xaw ma kii jël yaram seen yaram def ci loo xam ne kenn mënu ko autopsie nee loolu leen médecin bi wax ay waxam na de. Ibrahima Ibrahima mooy wax maay dégg mais yow déjà loolu rek début euh, de piste la pour autopsie. la ko def ci yaram yi beneen bi mooy suñu yaram maanaam yow benn yax ket mën nga koo am ci nit wala yenn ay partie euh, kii ñoo xam ne ñu ci biir nit nga mën koo def autopsie problème bi mooy li nga xam ne évidence la moom lay jël boole kook leneen loo xam ne ay kàcc parce que dama dama ci am benn boo xam ne ay ree moom a jàpp. faatu ñu sànni leen ci géej gi. waa des manifestants yoo xam ne dañu génnoon doon si ndigalu général Moussa Fall la ñu leen jàpp. yóbbu leen booru géej tuur leen ba ñu sonn sànni leen ci géej gi pour léegi parce que jamono jooju y avait benn ah là c'est grave jamono jooju man dama bëgg ñu déglu ma ak xel li may wax mm-hmm. foruma ko mm-hmm. inventé wu ma ko mm-hmm. utatuma buzz donc li ñuy wax xam nga utatuma gis nga même c'est kàddu sax mi ngi koy trahir comme Macky lu mu waxoon rek utatu voilà bàyyi naa njuuj njaaj xam nga xam nga <laughs> kon yàgg ut buzz parce que ñu bëri dañ lay dañ lay yónnee yi parce que dañ lay bëgg ngay ma ne man ça c'est yàgg a yàgg ba nit dégg ma taxaw wax euh, nit da ngay ami information ah, mais information boo xam ne bu ñu nee la vérifier ko doo ko mën a vérifier beneen bi mooy da ngay gën a jaaxleloo askan wi dem bay def ci xelu nit ñi sax que ne ñi fi nekk nii dañuy dil wala dañuy nangam ak nangam dem ba demu gis nga demu démb waxi président Diomaye su demuloon ci Macky Sall le jeudi boobu mais contrat wu Dakar naaf bi dañuy ñëw rek fekk mu mu dem ak yeneen ak yeneen yu ñu la wax yoo xam ne nangam boo xamul. da ngay noppi maanaam information jarul njëkkante. wala wax lu rëy. wala ñu ne la nangam ak nangam ak nangam parce que gis nga yu mel ni dañ ko war a moytu man gis nga yi muy wax bu ma ko amoon man ma damaa bëgg Sénégal mu wóoroon ne Moussa Fall tey xamal naa ko nangam lii mu leer damay dem ba fa mu war a nekk ma dem génne ko ne nangam ak nangam soo ko xamee ci keneen dafa am loo xam ne évidence la ñëpp xam nañ ne Fulbert Samb ak dañ leen a dañ leen a faat wala dañ leen a boom wala dañ leen a def nag loolu évidence la beneen bi mooy mu wax ne fameem ñu wan leen corps bi ne leen mënu leen ko mënuñ ko autopsie ñu suul mais fameem ñoom dañuy wax ne ñoom corps boobu ñu suul sax <laughs> ñoom du seen bos te loolu tamit man damay ñaan famille bi ñu dem ñu nangu ñu fulliwaat néew boobu xam kan la loolu nag ci laay dugal Marème fay lii ñuy wax wala nangam gis nga li dal Macky sàll ci bu muy def politique politicien di tappale mm-hmm. ñu looloo tax ñu jëlee leen fii président joomaay laa di démb loolu moo tax ñu bokk na ci li justice tax na ñu jëlee fii Macky sàll ak waa këram mooy par parlo justice. ay nit taxaw yàkkamti yor nangam rek nga daal jóg na nii léegi yow dèjà boo entamé benn procès vice de procédure am loolu rek annulé na procès bi. Karim Wade fu mu dem ci euh, nu mu tëddi euh, kii wu international yi dafa gagné Sénégal te loolu mënoon na ñàkk mënoon nga respecté ay droit topp ko ni nga ko war a toppee beneen bi mooy lii nag damay supposé je suppose maanaam bu fekkoon ne dafa am ay magistrat yoo xam ne dañu bokk ci dil bi maanaam di rafetal gars yi di jàpp ñi ñu warul jàpp di jàpp ñoo xam ne Euh, waruñ leen a jàpp waaye di bàyyi ñu ñu war a jàpp loolu mën na cee nekk léegi ñoo ñooñu yow boo bëggoon a jagalaat justice est-ce que ñooñu da nga leen war a bàyyi les mêmes postes ñu ne fa bale gi warut jóg te man njortu naa ne njort laay wax ba tey ne mbir mi boo ko enquêté enquête bu jaar yoon sax mën naa dem ba tëral magistrat ci biir te loolu si bu avéré kooku danga ko war a sax raje parce du yoon bi ngay waat. Macky Sall fekkewu ko bi ngay bi sa baay di fayal jàng Macky Sall fekkewu ko ba ngay toroxal wala bu ñu indee nit nga def ko gardaa bi ba rokkas nit ñi ci biir kaso bi la preuve avec que bi nga leen di génne waxtu xaaji guddi ñii guddi lañ leen génne te kenn tiitu mais yooyu yëpp buñ ko waree def ak justice mais dañu war a jox le temps ak justice. ok est-ce que am na ñuy wax ne président dañ ko loxo wala ko war a bàyyi. non président ci li loi bi wax mooy. haute cour de justice ñun déjà Macky Sall sax dafa defoon de telle sorte que haute cour de justice amul existé wut léegi yow te yow boo ko waroon a àtte léegi yow léegi yow da ngay dem ensemble ne leen léegi voté leen haute haute cour de justice léegi ñu ñu xool voté leen trois cinquième yi kenn ku ci nekk ñu voté pour mën a euh, kii Macky Sall te yow ñu barki démboo Ndiaye euh, débat d' orientation ñen ñoo tax ñu bañ ko majorité bi kon loo yàkkamti léegi nag bon. am na ñuy wax psychose moo leen yóbbaale ak li non non man dama leen a comprendre ah comme ni leen tin wax mais genre gars yu mën a kàcc yu mel ni waa ji may wax nii. noonu danañ tax ku nekk gën a tiit gën a jaxasoo sax pëccëxoo am ci dëkk bi te soxlawuñ loolu dal lañ soxla ci dëkk bi. ok justice am temps li ñuy def. parce que ñu ngi def ay réforme teg lu wér loo xam ne koo ci yóbbu. même koo ci yóbbu sax même moom ci boppam ñëpp danañ xamandoo ne nii. moo gën nga def fi ubbi fi front boo xam ne ñi koy jàppale dañ am sax raison pour taxaw di ko jàppale parce que dañ naan danga nga salfaañi ay àqam te nag war nañu mën a teg tey euh, justice bi tey kuñ fa yóbbu tey bu projet bay am yéen journaliste man ngeen dem def seen liggéey mais ñëpp dañuy mën a dem vaquer seen ay occupation ñu teg leen atte leen ba teg leen li ñu luubal man xam naa koo xam ne su Macky Sall la doon nekk mi ngi en site bil kii bi mu fa jënd immeuble bi mu fa jënd ëpp na 9 milliards yor parking boo xam ne fii tey euh, mooy loolu te tey mi ngi euh, bëgg a laxasuwaat ci biir système bi c'est des dossiers yoo xam ne dañ koy jaarale fi ñu ko war a jaarale déglu ma baax jaarale ko fi ñu ko war a jaarale mu topp circuit bi mu war a topp ba yegg fa mu war a yegg soxlawul déjà boo toogee sax ci li bon li ma wax nii sax bon maa ngi koy réccu boo toogee sax di ci xaw a wax nii. Hmm. Euh, di ko biral sax mën naa tax ñu jël seen ay garde foog gars yi def ndànk tuuti. ñii nii liñ fi luubal. Hmm. bul yaakaar ne dara rëcc na. mais nañu ñu may temps donner le temps à temps. ba nga xam ne dañ ko mën a. temps ba ba justice bi nangam ba pare ñu dem ci budget bële. programme lépp li ñu war a defaat yëpp ñu def ko. mais justice bi dajanteeg mu kii ba pare ensemble ñu joxe. li aspiration non non damay wax aspiration askan wi non mais as Macky Sall nga ma laaj ak ñi ah, yaa ma laaj ñooñu comme problème dafa concerner haute cour de justice mais foog ensemble bi changé c' est important Eliman Ba très sa gis-gis ak ñuy wax que ne président Macky Sall bu fi dellu siwaatee dañ ko war a teg loxo ci xibaar nag mooy xew-xew bi suba la ne sa premier daaw actuellement mu ngi au niveau du Dakar naka nga ko jàngatee. lu xew ñoom seen ban xew-xew lañ am suba wax doom bi lañu lañu may soxna. suñu yoon nekk si dama ne. seen takku seen soxna seen ñëpp suñu yoon nekk si yàlla na euh, euh, xar yi euh, kii nu mu tudd xëm yàlla na ceeb bi saf xorom takk gi yàlla na goro gi weex. yàlla na kii. mais c'est quoi ton problème dama ne. Euh, ah, soxna Batoor alias Macky Sall lan mooy sa ak Macky Sall instant yii sama yaram sama. Ah. bu ma wax ci kooku. dama xam. Ah da am problème personnel wala. sama problème ak Macky Sall. dafa téye sama nguur 12 ans sama doom di dee. loolooy sama problème ak Macky Sall. te sama doom yooyu waruñu woon. suñu suñu sama mbokk yooyu waruñu woon dee. ma foog na ko nob doomam mu ñëw indi ay loi am na si naan non man maay baale. loolu mooy sama problème ak Macky Sall. Euh, euh, soxna Batoor alias Macky Sall rek na problème. voilà soxna Batoor alias Macky Sall xam nga laa ko gëj a mereeti mais gën a mereeti démb bii le président Bassirou Diomaye fay wax le 29 mars la ca xew mooy bu ñuy moom ak ñooñam bu ñu yokkee facture yi bu ñu bu ñu bu ñu signé xaw ma lan euh, bu ñu précipité di signé ay benn arrêté boo xamante ni prix ndox mi dafa nar a yokk loolu loolu foo ko foo ko teg saa foo koy qualifié loolu soxor la wala bon la wala lan le 29 mars. maanaam ñu doon waaj dem ci ay élection pour mu waaj fee jóge ci la nekk di def lu ko neex loolu le président Bassirou Diomaye Faye moo ko wax démb ñu ñëpp ñu koy dégg loolu rek war naa tax ñu arrêté Macky loolu weesuwul haute trahison ñu dénk la suñu réew yow protéger la ci lépp nga bàyyi bay dem di di signé ay arrêté yoo xamante ni maanaam nguur gi da doon toog rek prix prix ndox mi yokk dégg nga ko wala déggoo ko démb mais Bamba bi ci topp mooy Sénélec bi ñu doon wax yaa ngi fàttaliku bi gars yi yokkee euh, facture kooku noonu 3 millions ba gars yi naan noonu dañoo juum naan noonu dañoo juumoon ci facture am yokkal ko 3 millions wala yooyu noonu juumuñu bés boobu noonu man mii sama facture bi ma daan fay presque 100000 francs 300000 facture 300000 francs la lañ ma jox. moo tax bi ba le président waxee li ci laa ci la sama xel dem ma nekkoon kon ñii wóor na ma ni ñoom ñoo si signé woon tamit arrêté ba courant bi mën a naaw ba facture yi mën a yegg ay 300000 ak yu kenn xamul jamono jooju ñëpp fay lu cher. boobu ya y' a neuf mois de cela. ci ginnaaw maa ngi gisoon sax benn waayu Sénégal ak Aziz Fall ñëw di expliquer ay ay waxu daalu saret yu tegul fenn maanaam ñii iñaan bi ñu iñaan soxor bi ñu soxoree woon Sénégalais yi man dafa ma jéggi man dafa ma jéggi daayoo te démb laa ci gën a xam dara parce que boo xoolee le président Bassirou Diomaye Faye dafa am sax lu mu nëbb lu mu denc. kii bi journaliste bi mu ngi koy jéem a wax ne ko waxal rek mais mu ne ko foofu la foofu la mën a yam bi muy wax ci wàllum fonds politique yi mu ne fekk na fa sax leneen lu gën a garaaw voilà donc dama bëgg wax rek ci soxoraayu soxoraayu euh, jaam bi nga xamante ni moom lañ fi tegoon tey nga xamante ni yow non man c'est inadmissible yow bambu man man je peux pas comprendre nit koo xamante ni dañ laa jël teg la fi nga nekk def la comme euh, tette la quoi yow aar la aar sa njaboot sax sa njaboot bi nga wax ni tey suba xaw ma dañ leen di takk ak xaw ma maye yow dañ aaroon ci lépp yow nga yow nga wëlbatiku di soxore yow Euh, euh, doomi sénégalais yi gis nga bii fii bu ñëwee fii nii dañ ko waroon dañ ko waroon taaj laaj ko ne ko yow sa conc yooyu noonu nga tegoon ci euh, ci dossier yooyu xaw ma ci rapport yooyu noonu yan yan yan yan dossier la woon. mais loolu wax nee na kenn mënu ko topp actuellement parce xam ne jéem nañ ko. moom laa la wax tey nag suñu ay président def leen comme ay buur comme ay ay demi-dieu. tey ñi nga xamante ni tey ñoo teg askan bi à tort li nga xamante ni lu metti la loo xamante ni askan bi waru ko woon dund. Bamba askan bi waru woon dund loolu nu nu mérité wuñu woon dund Euh, lu metti parce que Sénégal à chaque fois boo leen di gisee yaa ngi gis Sénégal Sénégalais yi dem lekk di Sénégal da ngay gis dugg kër Bamba lekk fa Sénégal ngi dugg dugg kër saa euh, ñaan fa ndox wala bëgg fa dalu dalu fa ba naagis génn dem sa yoon ñun ñun la yàlla may jàmm jooju noonu ñun la yàlla may affinité boobu noonu waaye lenn rek moo ñu dérangé muy da koy gis sax ci yenn commentaire yi ne Macky Sall rek moo nekkoon suñu problème parce que yaa ngi gis jamono ji réew maa ngi féex ñii ñi ngi kaf fii ñii ñi ngi foof yi ñii ñi ngi reef yi parce que ñun bëgguñu kenn lu bon mais lu ñuy yéene mooy tamit mooy lu ñuy bëgg nag mooy ñun li ñu yelloo nga delloo ñu ko loolu mooy dëgg mënuñ jël suñu alal jox la ko léegi cuun moom mooy wax la mooy sa problème ak Macky Sall sama problème ak Macky mooy dama jël sama alal dénk ko ko hmm. dama jël sama alal boo xam ne dénk ko ko protéger ko aar ko jël lépp jox ko may fay taxe nekk un citoyen nekk un sénégalais yeewoo fi màggee fi juddoo fii sama papa sama yaay yaree ma fii nii ma juddoo fii màggee fi waroon war a war a tekkee ci sama réew war a fi dund noflaay war fi dund euh, dund bu paisible war fi dund jàmm ak salaam yow nga jukk xaj ma ko ci benn nit ci benn minorité 18 millions de sénégalais loolu mooy sama problème ak Macky Sall problème boobu noonu il faut mu fay ma ko te moom laa lay wax xaw ma ndax mënuñ koo àtte wala mënuñ mënuñ koo àtte mais yàlla moom suñu borom Dieu n'est pas injuste parce que soxor soxor mënul weesu jëf yi ñuy bëgg def ba ba ba sax ba ci njalbeen ñi waaj a dem ñu ñu bëgg ñoo teg daan ñu bëgg ñoo teg lu lu lu metti maanaam léegi loolu bu ko defoon tey bu jàlloon tey bu bu bu bu bu tey nguur gi ñëwoon tey amuñu woon appui ci loolu noonu léegi loolu ban njëriñ la ko amal maanaam poosam kese quoi njabootam kese c'est que c'est un homme boo xamante ni moom boppam kese moom yoonam nekkul ci intérêt réew mi yoonam nekkul c'est que on avait boo xamante ni il était il était méchant dafa soxor Bamba dafa soxoroon. moo taxoon mu teg ñu lii ñu teg ci xamante ni mérité wuñ ko woon. ñun on on a ici Cheikh Ahmadou Bamba on a ici Mame El Hadj Malick Baye Niass Boukounta Ndiassane euh, suñu suñu jàngu bi ñu gëm suñu borom. nekk nag ay nit yoo xamante ni ñu ñu yenente jàmm la ñu mooy réew de la teranga Sénégal réewum teranga ñu am benn nit rek bu ñëwoon fattuñu ñu taraj teg ñu fu fu fu ñu yàlla tegul fu ñu seetaane tegul sax teg euh, mu bugg ñu fa yóbbu loolu mooy feeñ nii moo tax ñu ne ñu arrêté ko ñu ñàkk koo arrêté Macky Sall sera un prisonnier à vie parce que c'est lui moom moo ñu teg toor yi ba suñu ay doom dee moo ñu teg toor yi ba jël ay doom jaam tëj ci kaso bi ba ñu ba tey ñu ngi wéyee ay séquelles sax am na boo yu bëri yu xamante ni instant yi séquelles mu ngi nekk ci ñoom ba tey ci ay prison euh, liberté jàmbur Bamba koo ci koo xañ liberté une heure temps koo xamante ni waroo ko woon xañ loolu rek lu c'est c'est négatif dans un pays démocratie sax hmm. Bamba bu la doon invité sax da ngay tiit pour dem pour lan loolu noonu kooku moo ñu tegoon loolu noonu moo ñu jëloon nappoon ñu jël suñu waa yow su ñu lépp suñu ay loi suñu ay teg ak lépp mu jël sànni fële jël ay premier ministre sànni fële moo tax moo tax tey euh, premier ministre mënul sax dem assemblée parce que lan jëloo na fi ministre premier ministre supprimer ko ba ba ba ñuy falsifier ay règlement intérieur donc yooyu yëpp suñu loi yi mu jël ko def ko comme balu tenks di ko fooyee comme jeu Nintendo ce gars là il doit être arrêté ce bu ko yoon toppul yàlla suñu borom yàlla moom ba nit ak a mën a muñ. jërëjëf merci yàlla daal bàmba. Uh-huh. non yàlla ku mun muñ la. jërëjëf yàlla ku am ku am patience la quoi. parce que lii ñu kii teg nii mu mu mu toog di ko saraan nii waaye nag am na ku ko waxoon de nee na gis nga kuy wéy di def lu bon yàlla di la di la may jàmm ak salaam nga foog ne yaa ngi ci jàmm ak salaam nekkoo ci jàmm ak salaam bés buy ñëw di la caravasser barki alxuraan tamit di nga xam ne lépp dëgg la te dinañu dinañu fay bor bi parce que man moom keroog yomal xiyaam xaw ma dina ko fay fii wala fay yomal xiyaam la koy fayee bés bu ma jaxaarloog waajooju noonu Macky Sall euh, dinañu fay bor bi par force jërëjëf merci beaucoup en tout cas ñu ngi koy jaajëfal. doit être arrêté bu baax également euh, Jean Gamou merci beaucoup d'être là euh, Cheikh Jumeng également merci beaucoup David Guèye maa ngi lay nuyu bu baax Mohamed Guèye également euh, ça c'est ami de classe depuis Diosso maa lay nuyu bu baax nuyu waa Diosso nga waa soxol ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu actuellement nag ñu ubbi benn pàcc bu yaatu yaatu jëmale ko ci li nga xam ne rek moo di génn son excellence di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais monsieur Demba Thioune yow par rapport ak la forme en tant que taskati xibaar ngay jàngat lu jëm ci wàllum communication démb naka nga jàngatee euh, sorti wu euh, son excellence di Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a fait peut-être deux heures trente minutes yoo xam ne il a pu quand même euh, waxtaan na ci lim fi def lim fekkoon réew mi ak li nga xam ne justement mooy ses perspectives rien que la forme ban xayma nga ci defal ba ñu dugg ci fond bi. RAS. à part kontaan na. Mm-hmm. j'ai j'ai j'ai j'ai président. boo xamante ni dafa maîtriser sujet parce que dañ la naan mm-hmm. lépp looy wax. même bu bu dee maîtriser ce sujet. Mhm. ki lay déglu du comprendre. te da nga gis ne sujet yi bëri na lool waaye bépp bu mu lay tontu yow da ngay xam lu mu bëgg a wax te da ngay nangu c'est important. parce que moo taxoon keroog ma ne la président dafa am lu bëri lu mu war a wax Sénégalais yi waaye li tax mu gën leen mën a wax si Sénégalais yi dégg. il faut que kiy laajte xam lan lay laajte maanaam fan muy métti ba ba Sénégalais bi war a dégg lu mu bëgg a dégg. et sénégalais bi je pense que dégg na li ñu bëgg a dégg parce que question de justice la question sociale diplomatie euh, augmentation renégociation des contrat coopération entre ñun ak yeneen réew yi mu am lu mu la wax ba pare lu mu la wax dafa la daf la daf la doy mais en plus ci li nga xamante ni jotoon na ko wax avant muy nekk président wala bu ñu nekkee ci nguur gi am na lu mu la ci waxoon mais finalement yeesalaat na la ko ba pare woon la ne yoon bi nga xamante ne mooy prouver que ne ñoom ñu ngi ci yoon boobu pour dem fa. et je pense également euh, ci format bi. en toute sincérité. tout est nickel et rien exactement rien à dire lu dul.